wa sallallahu wa sallam ala nabiyillah salaatu lazi fi kulli shahrin wa fi safar amaani ala maay maa alab sawa safar mbokk yi noo ngi leen di nuyu bu baax ci bis bu bi seen bokk Seydina Omar Diagne Achadul Khadim isiyaar bu baax a baax waa Rafah TV yëpp di leen dokkeel ci bis bi muy màggal gi ku xam na ne bis bi kat li taxoon sëñ bi woote ko doon lenn lu dul yàllaa ko woo bis mu ñëw mu fay ko loo xam ne kenn ku mës a taxaw ci kaw suuf si kuñ ko fay amut mu mel ni fay googu nga xam ne moom la ko borom bi fay moo tax mu woote ne képp koo xam ne sama mbég mooy sa mbég da nga ñëw sant la ma yàlla moo tax mu wax ne bis bi bu ñëwatee képp koo xam ne li ma bëgg moom nga bëgg na ma sant la yàlla li tàmbalee ci ginaar ba ci gileem waaye xoolal sëriñ bi sëriñ bi kenn dàq koo sant yàlla ndax sukri rabbin karimin kaana sakkaara wa artaji minhu fi daarayni abkaara katabtu sukran lahu maa xar rajawtu bihi kawni saidan wa sakkaaran wa sakkaara moo tax la nga ci mën a dégg mooy fi mu ne kenn ku dàq sant yàlla sëñ Touba ci kaw suuf si amul ndax bi mu duggee ci biir la in sakartum la azidannakum la xam le ne kon faw bis bi da koo woote mu doon bis bu cant waaye xam ngeen ne mbokk yi sëñ Touba bis bii mu ñu woo ñu ciy sant yàlla lu ne lu ne ci xeeti lu metti daj na ko lu ne ci xeeti lu daj na ko lu ne ci xeeti njàqare itam dund na ko ci bis bi waaye dafa mel ni moom yëg gi mu yëg ne lépp mbirum yàlla ba muy waxal boppam sax naan ida zakartu zalika almabita wa zalika alamira wa sabuta taarak ila aljihati bil armahi nafsi wa lakina zaba an ilmaahi ba ne rasulullahi daf maa wax ne ma dalalal sam xel te xam ne lii ñu la teg nan la ko yiiwu dootul jeex fii dootul jeex fa ñu jëm moo waral kon métti métti li muy métti métti ci ñoom ci moom daf ñoo xamal ñun ñu aju ci moom ne nañ ko sant la yàlla moo tax dafa wax ne fukki fan ak juróom-ñett su dellu seete na ma sant yàlla damay ñu door koo jox liñ ko jox sëñ moo waxal boppam ne bi ma jógee Mbacke Baara Jolof ci fajar gi di dem ci géej gi dajeeg nasaraan yi ca jeewal njëkk may génn Mbacke Baara Jolof la ma saa borom wax na ma Ahmadou waxal loo bëgg tey ñu defal la ko ma ne ko lépp lu baax ba keroog lañ ma defal lépp lu baax moo tax sant gi mu démarré ko ci bi muy dem wax nañ ne sax keroog am na mag moo xam ne yuuxu na ci biir mag ñi na ko ki ngay dajeel muy noonu yi ku mas a dajeeg ñoom suba balaa ngoon faat nan la ku mas a dajeeg ñoom it ngoon balaa bët a set faat nan la sëñ bi waxal boppam ne ñooña mu daan dajeel du ñu man te du ma ñoom waxal boppam ne dem gii may dem ni mu leen leere dellu si moom moo ma gën a leen man si Amadou Bamba kon day mel ni la nga ci mën dégg mooy njëkk muy dem daal la ko yàlla may lépp luy teraanga la ko yàlla may lépp luy yiw kon nag nañ ko sàmm sàmm gi mooy nañ ko sant la yàlla ci nam ko bëggee jàng alquran jàng xasaayit salaatu ala nabi loolu mooy solo si nga xam ne moom la Cheikh Modou Mountakha woote moom la képp ku aju ci sëñ Touba tey baax woote sànq dama ko wax benn mbokk taal bi ma ne ko xéewal yi ñuy dundu fii ci Touba ñu bari noo jàpp na rek xiiwal yi dafa neex ci biir dëkk bi déedéet mbirum yàlla mi ëpp doole xiiwal yi fi mu ne lekk geeg naan geeg yi ci aju yëpp mbirum yàlla mi ak yëg gi nit ki di yëg yàlla bu fekkee xolam ba set na moo ëpp doole ci dëkk bi moo tax ñu fi ñëw ñëpp ku ci xool sa morom te ngeen bokk pas-pas bu sel da ngay ci moom yàlla mu yëg ci yow yàlla moo tax li ma ci mën a déggee mooy bés bi bis la bopp yàlla mooy ki ko moom yàlla la sëñ Tuubaa delloo njëkkal moo tax kon nañu nañu góorlu te jàpp ko ni mu ko bëggee topp ko ni mu ko ni mu ko bëggee topp ko yi ni mu ko diglee yàlla na yàlla defal ñu tawfeex defal ñu ndam defal ñu teraanga defal ñu yiw di barakat Cheikhul Khadim yàggal fi Cheikh Mountakha noo leen di jégalu bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani